you منسوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفولا مسلما إليك أمي مهاجرا لما لديك sudilam dar

ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى ولا ñuy sant yàlla bu wér comme ni ko Serigne Touba sante boromam ba mu sàkk bis bi ne nañ ko santale boromam noonu lay noonu lañ amee ak cant ci moom moom itam. sante ko Serigne Mouhamed Mbacke mi nga xam ne it moo nu boole ci liggéey bi ndax bu ko bu ci boole doon nag duñ ci bokk am na ñu ko bëgg te mënuñu ko am. xanaa sant rek ak programme sëñ bi rek wilaaye ab ab programme la ci biir loo xam ne nii da da ngir. xam na ne mag moom du dem waaye bu ci dugalee gone fu mag yam gone mën naa dem loolu mooy programme bi ngeen fekk da ngeen fekk ay ndaw fekk fi ay mag te fi mu ne nii boo xoolee liggéey bi gone rek moo ko yor daanaka kenn toogul guddi kenn toogul bëccëg duñ nelaw itam nag li fekk liggéey baa ngi suñ kanam duñ nelaw loolu nag dañ ko sant yàlla rek sante ko Serigne Touba mi nga xam ne ak Serigne Mohamed mi nga xam ne moo boole ci liggéey bi lu ci def rek xeeb nañ ko ci def rek xeeb nañ ko ndax sant gi nu ko sant mun nu koo birati wala waaye mun nu ko jëf ci ay cër sëñ bi moom moo xam nu mu bëggee ko ko santale borom waaye nun day wax dëgg yàlla nun xamul nu koy sante ndax danoo sant ba sant yam cay fas ci liggéey bi nag mu eggaleel na cant kooku ci ci moom xanaa gën a góor góorgóorlu rek ca xam ne sëriñ bi moom du fi indi mukk li ñuy xebat du doon tey du doon ëllëg ku ci ko lu waay lu ci waay gis bay nga ci séntu lu ko ëpp ëllëg ca xam moo ci nekk loolu daal laay laay yëbb ndaw yëpp nag ku ci nekk ci waañ rek na nga gën a góorgóorlu te gën a takku. dëgg dëgg liggéeyu hébergement moom mooy ku ne xam na ne barab bu ñuy dajee day am lu fa jiitu ndax fii ñu nekk nii rek bi nga ñëwee dañ leen a dalal am na ku leen di dalal bu laajee mu jox leen ay teraanga mu def ko lépp loo xam ne daf koy laaj ci jotaay boobu mu def ko. ginnaaw bu prestation toogee ba pare événement bi la ko war a jox ndax ñun ñoo dalal gan ji ñun dalal gan la ñuy def toppatoo ko teral ko loolu mooy suñu liggéey. liggéey bi ñuy def dafa dafa ànd ak muñ ku mënul muñ mënoo ko. naqari deret bi ak euh, tang bi ak euh, gawa xex bi wala gawa xulo bi lim lay yakal mo ëpp lim lay defar motax organisateur bi na membre ak hébergement bi ñun biñu soxla soxla wuñ ko muy xulo soxla wuñ ko muy xex soxla wuñ ak naqari deret ci moom oyof tooyu lañ soxla ci mom ndax su fekke da ngay liggéey bam yag nit wax ben kaddu nga dégg ko tontu ko sa liggéey day te ñun dañuy jàng dañuy taseeg façon gan gu ne nit ku nekk lañuy la dajal nit koo hamne linka liñ koy defal dara ñoru ko ci yàq ko tax a li ngay def du mën a baax ci kanamam dañuy daje tamit nit koo xam ne amaana responsabilité bi la dénk wala lii ñu la jox li la liggéeyloo su xalaatam mu échec da ngay jànkonteel itam ak ay nit ñoo xamante ne nii say su ne yaa ngi nekk ci seen biir di leen toppatoo waaye ñu ngi seetlu lépp lu manqué ci li nga leen di toppatoo ak cër bi nga leen jox ak yar bi ba ñu dellu ci kilifa gi wax ko ko kon dañuy soxla organisateur nit koo xamante ne ni dafay bàyyi xel ci boppam dañuy soxla nit ku yaru am éducation ndax yar bi mooy tax nit ki nu mu ñëwee rek nga mën a wax ak moom ma am loo xam ne dama ko fekkee itam jàpp ne kon moo ñu gën a dimbale mooy sëñ Muntaxa mii nekk xalifa sëriñ Touba ci kaw suuf te ñetti fan yëpp ñu bokk nekk ak moom ci biir kër gi man fekke naa jotaay boo xam ne suñu jëwriñ yi fekke nañ ko mooy année bi ñu njëkk a tànn wilaya dénk ko liggéey bi ñu magal ba paré am ay xéewal yu déssone ñu jox ñu ndigal né nañ ko yobbu ci buntu kër Serigne Touba yi keroog buñu démé ba tok mom lim ñu wax moy yéen de tan ñan lañ wara jox magal gi ma leen jëk tudd ma leen jëk tudd loolu mom sama nopp mom may kon mu melni ni Touba Serigne Muntaxa mi nga xamné mom lañ bokkal kër gi mom moñu tan tan gi doon tanef go xamanteni ni dafa mel ni dafa dafa yëg li nekk ci suñuy xol ndax xale yi ñu dajale fi. nangu gi nekk ci ñoom ak pas-pas bi nekk ci ñoom surtout ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba nga xam ne semaine màggal gépp kenn du ci teew sa kër kenn du xam say gan ndax ñan ñoo ñëw ak ñan ñoo ñëwul ak jafe-jafe yi am yi jang kontel. waaye terewul lépp ñu di ko gérer jàpp nañ kon sëñ Mountakha mi ñu tan tànneef gi baati na ngi ci. maanaam hébergement et service dafay bankas bu kompu ndax ni ko ñenn ci jëwriñ yi waxee rek koo xam ne da ngay jaxasoo foo toll ak ay nit ñoo xam ni nit ñoo xam ni euh, xëy na nit ñu bokkul ay dëkkuwaay bokkuñu environnement bokkuñu ay làkk bokkuñu liñ bokkule daal bëriwul léegi nga bëgg dund ak ñoom dana xaw a metti waaye dafa fekk nag bu fekkee amoon nga équipe boo waajal ci wàccaay wi war loola jafe-jafe yim laaj yi ci war a am yëpp mën na cee bañ am moo tax depuis bi ñu tàmbalee di la 14 safar ñu fanaan si xëy la 15 safar jublu ci liggéey bi boobu ak léegi wax dëgg yàlla yëf yi mi ngi avancé parce que gis nañ ni équipe bi ñu am équipe bi mën na li muy def xam na ko te yàgg na yàgg na koo def miin na ko mineel boo xam ni wax dëgg ba léegi jafe-jafe amagul. waaw xam nga yàlla dogal na jamono yi yëpp ñi ngi ciy wax ci groupe WhatsApp yi. di déplacé wu di dem ci dëkk yi nga xam ne ci la section yu mag yi nekk jëwriñ yi di déplacé wu di ca dem di sensibiliser ndaw yi nga xam ni ñoo war a ñëw ndax xam ngeen liggéey bi ndawul te liggéey bi faw nga maîtriser ko bala nga koo def bii rek maa ngi koy wax mooy da ngay tiim aw ñam mën naa nuru lu bari ci say bët mais ñi koy jël si buñ ñëwee ba kenn ku ne wax la lim soxla li nga tiim day jeex te doo matal lolu faaw nga am nga am xam-xam ci li ngay def do ko meuna maîtriser motax ñu wajal ndaw ñi ci sensibiliser len tag len ci li ñuy wara def ak niñ koy defé ci gan gi lu mu wex-wex nga meuna a ak mom waye lu mu lewet-lewet nga meuna a ak mom waye gan gi lu mu bëggit da nga ca def sa kem carton ba bo defut lepit gan gi moy muju yërem la xamni ne yow mi am nga yene ak pass pasub def lepp waye fi le sa man-man yam mu mu mu ànd ci ak yow gone yi ak bëgg lañ am bëgg mom lañ jiital ndax li ay jafé jafé ci kër gi bari na trop parce que juroomi fan wala juroom ben nelawoo ci nelaw yu bari ne naa la démb parce que 4h 5h man la paré ci lima ma doon def té maag ñu bari ci gone ñu andon bu nelaw yu bari wul doyul bala nga lek ñepp lek ba paré nga xamné lek lek da ngay dem ba sax dootoo ko far soxla yoy ay jafé jafé la waye téwut ñom bëgg giñ bëgg ak engagement bi ñu am ñom lolu mo mo tax bo leen xolé da nga leen sax yërem waye yërmandé gi du du du métti lool parce que engagement bi ñu am moy wané ni ñom li ñuy def bëgg nañ ko jaral na leen lépp gone yi ma àndal e, am na ci gone yo xamni egg nañ ci buñ xeyé lu manqué dañuy lamb seen poste jëndiko tay ak fan yépp bari na ci léeg-léeg luy manqué ci bagage yo xamni ñom ñoko jëndi dama ñëw rek fekk fi sama laaje dañ mëna ñom ñoo jaayante fexe ba dugal ko ci bis bi ndax xam nañ ni bis bi moom bisub sëñ Tuuba la waaye lu ci waaye defit boppam la koy defal moo tax pas-pas bi ñu am daal ak engagement bi ci section yu wuute yi nga xam ni moom la ñu jógee ñëw ci dëkk bi vraiment ay jàmbaar ngi ci seen biir xëy na nag lim bu nekk dina ca di nga ci gis ku jàmbaare gis ca ku xaw a yaafus tuuti waaye teewul daal jàmbaar yi fexe nañ ba lépp di dox ay jàmbaar lañ yoo xam ne ñu ngi fexe ba lépp di dox ci côté yëpp nag wax dëgg côté yëpp am nañ juróom barab yoo xam ni benn bu ne ab équipe moo fa nekk ndax fi ñuy wax Daaru Marnaan di batiment bi sëñ Ahmadul Moxtaar doon taxaw am nañ fa équipe boo xam ni day taxaw suuf ga lañ fa am ci ay ay néeg lépp bay taxawaale waa relation extérieure fañ nekk ci set gi ci jox mu lekk jox mu naan ci taxawaay bi ci taxawu bi ci doxi yónneen yi lépp ñu ngi koy def bu ñu fa jógee Daaru Daaru Marnaan de fii sëñ Ousmane doon taxaw it muy bâtiment bi ci ginnaawam équipe bi ñu fa am am na fa quatre niveau yoo xam ni niveau bu ci nekk quatre néeg am na fa ak juróom-benni salle te ñoom ñoo koy taxaw mat Matlabul Fawzayni en même temps ab équipe lañ fa am boo xam ni presque ñoom ñoo gën a métti liggéey ndax ñoom amuñu essencerie yi te seen ndox day manqué lu baree bari te dañuy yéeg yéeg ci kaw di ko yéegal ngir bañ jafe-jafe am waaye bâtiment bi ñu wax déndé ak sëñ Massamba nga xam ne sëñ moo liggéey moo ko jiite it noonu la demee. nga xam ne daal liggéey bi wax dëgg yàlla gone yi ñu ngi ci wane pas-pas ak pëstéef boo xam ni yow boo toogee di leen xool liggéey bi mën naa yomb ci yow ngir li nuru lu gën a jafe liggéey bi dafa yomb mooy xëy na yeneen bànqaas yeneen commission yi dox yeneen sous commission yi dox ci liggéey boo leen di xool mën naa mel ni moo gën a jafe li ñuy def mais li ñuy def moom liggéey bu xam-xame la liggéey bu technique la liggéey bu laaj bopp bu ubbeeku la moo tax vraiment ñi ngi sant ñi ci àndal ñi ngi sant ñi ci bu baax ndax amul benn yoon bu ñuy gestu te gisuñu leen ñu nekk ci li war a nekk te seen yoon nekkul ci dara lu dul. looloo muy lu yàgg ndax weesu na rek euh, ñu wax diggante mu xit ma ak wilaaya mais ab comité la te comité bi ñi ŋànk liggéey bi waa Muqaddimatul Xidma ñi ngi ci waa wilaaya ñi ngi ci. ba tax na sañ sëñ bu Bousse mii nekk fii chaque jour bu xëyee dana laaj ba xam ndax am nañ jafe-jafe wala amuñu ko suñ ko amee léegi léegi lay jóg taxaw ci def ci li mu ci war a def. loolu nag kon du rek lim nekk Muxaddamatul Xidma di yor ak yi bi ñu nekk wilaya yor hébergement et service mais dafa bokkaat ci comité bi war bu liggéey bi amee jafe-jafe mu jóg taxaw jàpp ci te noonu la taxawee taxawaay bu rafet moom ak éléments yi mu àndal yépp taxawaay bu rafet la ñu am mooy di fexe ba ñuy ñuy gan gu ñëw ñu yóbbu ko fi ñu ko war yóbbu annoncé équipe ba ñu fa nekkal ni ko gan sàngam ñëw na demal defar neeg ba mu dem waajal ko ba mel ni mu wara mel bu melé ni mu wara mel mu dogo ñu indi gan gi kooku tàmbali nag toppatoo bi fi mu xaadimatul xidma baye fi la membre wilaya bi tambulé mom top to bi to bi jëm ba kérok magal gi jeex. liggéey bi day sacrifice bu mak, la andal ak choono bu reuy choono bi nak ak sacrifice bi lamb na mbollem ñi nga xamni ño nek ci comité d'organisation bi. Eh, ànd ko ak Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdul Xaadar coono bi nag tudduñu ko ngir njàmbat dañ koo tudd ngir wane ni sañ noo rafet njortu te dëggal sunu yaakaar ci Sëriñ Tuubaa ndax moo waral coono bi bu dee ci cadre bi nga xam ni moo tax ñu tàllal micro bi muy cadre wilaya bi eh, effort yi ak coono bi dafa tàmbalee ci ab formation eh, formation de baas boo xam ni eh, ci kuréel gi ci lay dund eh, tàggat ci ay ndawam eh, wala tàggat ci ay membre am ba ñi ci gën a màggee di ci tàggat seen ay njaboot di ay rakk wala ay doom ak i jarbaat la jiitu ci li ñuy def ci boppu njaboot gi boppu boppu xale yi ngir tàggat leen mooy fexe ba ñu doon ay nit ndax sun borom tabaaraka wa taala li mu bëgg nit a ko man te sëñ Tuubaa li ñu koy defal lépp ci biir bëggug suñu boroom gi la ne kon sëñ Tuubaa li mu bëgg nit a ko man kon formation bii dafay tàmbalee ci eh, ñu def njaboot gi ay nit fexe ba ñu doon ay nit yor ay xel yu set te di ko jëfandikoo dafa bokk ci liy tax eh, nit mën a nite nag surtout nit kuy dund ci mbooloo eh, di di di def ay échange ci biir mbooloo di jaxasoo ñoom Euh, noonu philosophie bi nga xam ni bokk na ci bi nu gën a dimbali mooy danoo jàppe suñu bopp ni nun aw nit la lu ñoo xam ni euh, nun nun doonu nu nit ñu dul juum laa bëgg a wax loolu loolu loolu dañ koy forma dañ koy euh, defaale ci formation xale yi bu leen jàppe seen bopp nit ñu dul juum nun nit ñuy juum lanu waaye dañuy jàng ci sunuy juumte nag danoo doon nit ñuy jàng ci sunuy juumte loolu mooy tekki ni Euh, bu nu dikkee ci cadre bii may wax euh, depuis que 2008 euh, bi nga xam ne tàmbali nañoo ne ci liggéey bi ni ma ko waxee dellusi nañ ci ay yoon wilaya buy forme ay nitam daf koy tàmbalee ci li ñuy wax cellule de base muy ay daayira léegi nag bu dee ci li gën a jigéen ñi muy cadre màggal gi Euh, euh, ay nit dafiy ñëw ñoo xam ni euh, xam nga boo demee Màkka dañuy wax duyufu rahmaan gani yàlla yi ñooñu la ñuy tuddee ujaaj yi gani yàlla yi la ñu leen tuddee fii dafa am ñu tudd gani sëñ Touba donte ñëpp sëñ Touba leen te waaye am na ñoo xam bi ñëwee directement ci sëñ bi lañ jëm si ñooñ gani sëñ bi lañu ñooñu nag ay nawle lañu ci diine ay nit yu baax lañu ay kilifa lañu fa ñu bàyyi ko di ay ay buntu këri lislaam ay association islamique ñooñu nag bu fekkee ne yàlla daa dogal ñu teg seen ay teranga ci sa loxo nga war leen a toppatoo dafa am nit koo war a doon ku ñuy préparé koo xam ne dangay doon nit koo xam ne da ngay seet ci am xel seet ci ak comportement ak jikko ba mën a jaxasoo kilifa ndax kilifa gi ñu lay wax ne da ngay jaxasoo moom dañuy bëgg nga jox ko dayoo bi nga jox sa kilifa ndax dafa am dayo boobu moom boobu jógee këram loolu tax euh, njaboot yi nga xam ne dañuy tànn tànn bu metti lay doon waaw ndax dañ ci dul maslaa ndax dañuy bëgg résultat parce que résultat bi résultat bi Sëñ ñe ñe ñe ay étudiant lañu ñe ay société lañu ñe ay nangam maanaam yépp corps euh, administratif ak social yi nga ne ci jamono di jéngu ñee di borom mi métier di ay chef entreprise ñoo ñoo fi bu bu yëf yi yegsee loolu dañ koy summi sol mbubum don organisateur buy liggéey seigne touba do ci xamé kenn waye lolu nak boko quantifier da ngay xamni yitté ak effort yu maga mag la mbolo mi def ngir yewenal bis bi Thank you.